si. waaw yow bokk nga si nga xamante ne euh, heureusement mu ñëw bokkoon si rescapés yi nga xamante ne moo amoon si GIE euh, boobu amoon si bateau Joola. Mm-hmm. tey jii vingt ans après euh, ban boo doon boo doon ñëwaat si si si si si loolu ndogal boobu amoon tey ji en terme de souvenir tey jii lan nga fi mën a wax. asalaamaaleykum maa ngi tudd Malang Badji man rescapé laa ci batalo Joola tey la bés bu dellusi tey mooy vingtième année ñu ngi dox ci mettit ci nakar ci dëj ji tiis ci jëye bi amoon diggante Casamance ak euh, dakaar ci bateau bu ñu tuddee le ma yéegoon ci pour ñëw ci ouverture u école année 2002 mu fekk nag bato bi yegg siwugul port Dakar parce que dafa def accident ci diggante bi ba ay nit yu bëri dee mu des ci 64 rescapés waaw. tey jii nga bokk euh, vingt ans après mu mel ni chaque année ñu gis ay manifestants yoo xamante ne. ñii ce sont les familles des victimes ñii ce sont les mm. ñuy dox ay ñaxtu pour pour seen ak seen yelleef ñu delloo leen ko. Mm. tey jii ba gis nañ vingt ans après ba tey jii bon defe naa moo tax sax tey nga ñëw Sénégal yu si bëri nguuru Sénégal matale ko tey jii boo loo siy wax euh, lan lay doon. voilà mm. benn sentiment déception laa am. ci envers sama état. sama nguur parce que. affaire bi bu mu amee takk premier anniversaire bi président Ablaye Wade moo dox sol ay dàllam dem ba Ziguinchor mu ŋaan que responsabilité état la te nee ne laxisme la maanaam genre teyeef la ci loxo la maanaam lu ñu toppatoowul ba mu rafet bu lu ñu toppatoowul maanaam lu ñu toppul buñ ko toppoon nu mu buñ ko defoon nu mu war a defee du demee nii donc am na benn quelque part euh, ah, laisser aller mm, mm, nu ñu koy waxee ci olof comme Joola là vous comprenez yenn mots yi ça pas mm-hmm. donc euh, dafa am leneen lu manqué li jóge ci seen loxo mm-hmm. mooy lan sécurité bi bato bi doyul mm-hmm. bato bi ñun ñu ci yéeg bu mu yéegee caravane chargé ci ay bagages on a que bato bi dafa weng te ils avaient le temps pour ñu ñu équilibrer ko balaa ñuy dugg ci embouchure bi maanaam ñu dugg ci océan bi ce qui n'a pas été fait mu tombe jour bi nga xamante ne dafa taw taw bu bari boole ci ngelaw ngelaw bi encore mu pousser ko ci côté bi nga xamante ne bi fu mu wengee ku kuy kuy weng gauche ñu ñu pousse la côté droite da ngay gën a gaaw daal wala léegi ma ñëwaat ci revendication yi nga xamante ne ñun ñëpp ko bokk mooy Euh, la prise en charge mooy ñu ñu ñu ñu ñu ñu jël xale yi ñu jëloon mm-hmm. mooy tout tànk yi yi nga xamante ni seen waajur yi ci bato bi lañ des ah. ñu tuddee leen pupille de la nation mm-hmm. état bi moo ne day jël responsabilité di leen jël mm-hmm. jëlu leen ba 2011 de 2002 jusqu'à 2011 boobu croix rouge nationale xaw ma international mu jël leen jël bu rafet di leen fay seen jàng di leen dimbali ci seen fourniture état bi siisu ci ñoo korti gestion bi croix rose bi nga xamante ni moo ko doon defal mu rafet ba parents yi gis ci seen bopp état xam nga ni ñoom dañuy taf yëngal ñu ñoo nangu xale yi seen loxo te defuñu ko ku waa croix rouge defee voilà dañoo génnee loxo raxas loxo croix rouge ba mu set ñoom ñu jël ko enchar ba mu ko jëlee ba pare defeewuñ ko noonu ñu koy gere en dents de jox benn famille quarante mille ba pare da xaar ba nga yore leen ay fukki weer boo xaaree ba mu jot événement bi rek nga jox leen 40 000 ba pare nga naan vous avez pris en charge entière les famille de victimes mooy mooy kii les pupilles de de de de de la nation. ok n'a pas été fait. Euh, yeneen ñaxtu yi léegi yeneen ñaxtu yi mooy justice. nan naka ngay waxee ni bato bi état bi moo ko moom maanaam gestion bi militaire. amul benn responsable loolu fan la mës a am ci benn àdduna loolu yaakaar naa ne amul ci benn benn réew ci bato bi nga xamante ne accident bii mooy accident civil bi amee ci géej bi gën a rëy ci àddina parce que boo gisee ñu bëri xamuñu ko parce que c'est mal médiatisé tey maa ngi nii téye micro Sénégal ak maa gënoon a am fierté téye micro RTS bi nga xam ne sama dërëm dem na ca maa ngi fay l'impôt donc micro bi micro ñëpp la mais du ñu topp sax vingt ans ngi nii bu ñu buñ ci yéegee c'est parce que dañ ci yéeg topp ministre bi ba Ziguinchor ñu def dépôt de serpe ñu dellu si benn passage rek la ñuy def rek romb nañu or télé yu bëri yi nga xamante ne télé jàmbur la télé privé ñoom ñoo fi nekk ak organe privé ak presse étrangère ñoo ci gën a kii ñii ñi dañuy dagg seen billet d'avion depuis France fekk ma sama kër pour laaj ma affaire bi nan la demee ma ñëw ci prise en charge bi boolaay prise en charge bi buñ la joxee ordonnance bu njëkk ba pour ñun rescapé yi dañ lay ne nga dem Fann nga enregistré ko nga jóge fa dem building nga enregistré ko wàcc dem clinique Pasteur refaire la même chose refaire la même chose loolu mën na nekk ci ki feebar xam nga ni sénégale bu feebaree comme ku sonn mm-hmm, te waxuñu keneen mu defal la ko yow yaa koy defal sa bopp te ñun dañoo baaxoo feebar moom du koy ku sentir feebar ñun dañuy xaar ba nga sonn ñu naan damaa feebar est-ce que mën naa jóge man mi dëkk yëmbal dem ba faan jóge faan dem ba xaw ma comment dirais-je building ñu enregistré ma ak politicien duñ motal sax jóge fa encore dem ba clinique Pasteur ñu enregistré ko jox ma garab ma ñëwaat refaire le même même chemin pour jot ci garab ñu teg ñu ci benn la benn yoon laa ko def pour essayer ndax dëgg la mais yoon bu metti la donc bu doon keneen du ko mën a def. kon tey jii est ngeen yaakaar ak président euh, seen ñaxtu yi nii dina ko dégg ba indi si ay saafara donte moom nekku woon président ba loolu di xew mais tamit il était ministre conseiller il faisait gouvernement tey jii est am ngeen yaakaar ne seen ñaxtu yi daal Macky Sall mën nañu fi indi ay saafara. luy gars di wax mburu foofu ko fare hmm. moom il était dedans. dans moom moom bu bu affaire bi amee il était ministre de ah, l'intérieur mu jóge fa yor ndombo tànkam yi yëpp. Mhm. mooy deux deuxième anniversaire bi xam nga troisième. moom moo demoon présider ko à Ziguinchor. bu ci topp xamu nu mu def ci ci nguur Ablaye Wade. Mhm. fii la toog en tant que premier ministre. recevoir euh, Ségolène Royal. Mhm. jàppuma at bi de mais nag boo xoolee archives yi. Macky Sall jour bu mu waroon dem Ziguinchor pour la deuxième fois année jour boobu mu considéré le vingt 26 septembre fii la toog recevoir Ségolène Royal j'ai la chronologie donc xamal ni guur Ablaye Wade sax daan nañu waxtaan ak gouvernement mais lii sax da da da ñuufu lalul ah, tey tey tey tey la wàll gën a ay tey mooy vingtième anniversaire dañoo invité toute la presse internationale ñu joxonte date rendez-vous le 26 depuis avril parce que dañoo dem demoon réfectionner les cimetières de Ziguinchor ay ay press internationale ñu jóge France RFI à l'occurrence daggal benn benn journaliste France mu ñëw ba dakaar continuer par avion ba Ziguinchor pour fekkee avant-goût maanaam pré-campagne yu vingtième anniversaire ñu xam ne que lii ça va faire un tollé ñu ne non non ñii dañuy bënn seen roue nu ñu def Chaque année, il donnait une enveloppe à l'association des, des, familles de victimes pour la commémoration. Zéro dañ ko rey avons dem réunion. Nous avons lu dul ministre bi comme ni mu fa daan demee benn dërëm dañ ko doon wax li jëm ci loolu ñu ne yeeyu ci yàbbiwu ci j'ai appelé pour demander est-ce que ils ont donné les moyens à la dernière minute moi moyen sans moyen moi je ne fais commémore pas Ziguinchor man si sama oto laay dugg dem def sama pèlerinage état au sans état man dinaa def sama pèlerinage mais ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen ko tàmmaloon di leen ko defal te c'est leur devoir lii du xaalis bu ñuy lekk pour def dëj dafa mel ni anniversaire wu sarax c'est symbolique mm-hmm. léegi ñoom ñoo toog budgétiser avec le gouverneur de Ziguinchor ñëpp donc loxo état ma nga ca suivi bi yëpp parce que après dañuy def benn bilan financier bu ñu ko deful ño ñoo xam je ne suis pas dans cette organisation financière mais je te dis que ñun amuñu yaakaar te il nous a déçu le gouvernement bi fi nekk déception lañ ci am parce que nan nga ko defee ba ren ñu war a ñëw an de vingtième année kii commémoration ñu invité toutes les presses étrangères même à Ziguinchor ñun ñi waroon a dem sax ils ont annulé les réservations d'hôtels et le transport parce que rien n'a été donné. <clears throat> ラジオ局のエンターナショナルbon tey fu ñu baare parce que dafa mel ni affaire bi réponse bi c'est irrecevable parce que France dañ ne le le dossier est classé sans suite au tribunal d'Evry ñu ngi koy suivre depuis 2018 de 2003 maanaam ba 2012 la là était pendante en dans la justice par la justice française pendant 15 ans buñ ci jógee ñun avril quatre la Ablaye Wade bloqué lépp ñu France France Afrique ko francisé ko xaw ma France ñu ñu ñu doxee ko diggante France Afrique diplomatie ñu fay ko ba mu sedd guy dégg nga sama naataango mu ne la sax xoolal ñoom pour ñu may leen ñu fu ñu defee benn stèle sax mayuñu ko léegi ñun musée mémorial bi Ablaye waat d'alors président de la république moo demoon boo posé première pierre bi mooy la fii lañuy defee musée bi au niveau de fële Fann fu ñu jóge nii côté Radisson fu muy nekk noonu côté yooyu loolu yëpp c'est de la poudre aussi léegi Macky bu mu ñëwee ñu ne musée bi léegi dina am waaye Ziguinchor lay amee ana pose première pierre bi ñu léegi dañuy àbb place place du souvenir fu mu ko tegoon léegi ñu ne au lieu de la place des des naufragés dafa ne place du souvenir africain ñu léegi dañuy dem comme dañuy àbb. ok ngeen amoon boo amoon message dernier message booy lancé man moom ci sécurité bi laay wax. parce que naufrage du bateau le moo waroon nekk leçon. état bi comme nangu na ni moom mooy responsable donte situé wul les responsables sanctionné wu leen ñun ñu ngi ñaan nit ñi nañ taxaw la police maanaam ci circulation bi ñu ngi gis chaque jour pendant les heures de pointe bu ñuy xëy oto yaa ngi fees bay làng c'est pas de la sécurité nga ñëwaat am nañu benn moyen de transport bu bees xam nga ndax jël ngeen ko wala jëloo ngeen TER bi bu yéegee Dakar day fees ba ne pan bu ñëwee Colobane waa Colobane encore force la porte devant la gendarmerie de la circulation balaa muy oyof il faut mu egg Caaroy Pikine lay désengorger tuuti Caaroy lay commencer oyof donc moi je lance mes alertes pour dire à l'État ne suivre li ma leen di wax nii la leçon du Joola même tey monseigneur wax na ko mooy mooy kilifa kii bi nu ma tudd église bi tant que jëluñu leçon ci joolaa beneen joolaa dina amaat te ñaanuma ko ci sama dëkk Sénégal moom moo choisir Sénégal mais bu ñu bu ñu sañoon bu mu am dëkk fu muy teeree mais la leçon n'est pas